pour des gars fees. ma regarde fédération qui aussi des milliards dans leur compte. Oui. la sénégalaise chaque dimanche ñun rek ñoo capable feesal arène yi ak stade yi la lutte moo ko mën amul benn discipline ko mën te ñëpp dañuy paas à quel prix le plus petit billet souvent c'est deux ou trois mille francs day dem ba cinquante mille francs le billet arène day fees wala stade day fees dellu alors si la structure dirigeante amul dara lu ay dix millions cela veut dire qu'il a problème. par non par exemple cest après la fin, la fin de saison par exemple nga am loolu parce que y a fonctionnement donc loolu yëpp il faut que làmb jox boppam gëdd fii fédération yi nekk Sénégal ñoo ci wóor ëpp xaalis donc on peut dire que war na donc dafa am hors la loi cest à lu bëri lu bëri c'est pas légal alors parce que pratique yi c'est pas légal non pratique yi c'est pas légal c'est interdit par le règlement mais xam nga pour nga nit ciix ni ki jàpp ko ca loola xam nga da ngay rek ci presse bi rek mu ne way fay lañ la fay mu ne noonu du ma ko wax bàyyil ñoom rek. Mm-hmm. alors c'est ça. dañuy ñëw fële irrégulariser ñu ne waaye million fekk na dem nañ fële ci benn salon. ci benn hôtel wala say ci kër ci kër ci kër merci. Mm-hmm. waaw seen avocat ñu toog ñu signé foofu nangam. comment vous pensez pouvoir changer. que dafa bokk xëy na si seen liggéey. il faut sensibiliser. il faut sensibiliser il faut éduquer sensibiliser les parce que loolu dafay nasaxal règlement bi bu la xamee ne boo defee lii dañ lay dagg seulement dix mille francs. mais mbër yu may dañu dagg bi dagg bi non mais c'est mu di somme par exemple fekkee ne ma wax la une journée mun na am à part le grand combat 500000 par exemple ñi des yëpp 100000 100000 100000 lañ leen man su ma xam mooy ne question daam ñëw CNG on va on va montrer hein les fiches les contrats 100000 100000 da ngay de paie nga gis di combats le grand combat. quatre cent mille quatre cent mille. Ah. ñu des yëpp cent mille cent mille cent mille cent mille cent mille cent mille cent mille cent mille. ça c'est grave. ça les déclarations. ok bon maintenant on va continuer à sensibiliser woon leen lii par exemple ça affaiblit le règlement et ça affaiblit la lutte ci Dakar parce que bu fekkee ñun def nañ le bilan de la saison autorité bi wala sponsor bi toogoon fële dama je veux mettre par exemple cinq milliards ci làmb mm. Sénégal boo xam ne dañu noo écouter mais si c'est rien ça ne rapporte rien du tout. Ouais. alors que ça peut beaucoup rapporter mun na indi xaalis bu bëri donc moo tax ma ne il faut que ñu continuer suñu sensibilisation. ci ci mais est-ce que am na pexe. am na par exemple ñuy déclarer normalement li ñuy fay mbëri ci CNG. Mhm. am na pexe wala amul pexe. non am na pexe ñu ngi ci réflexion bi xam nga demoon naa bi ma ne dañuy fexe plus le montant est grand le montant est en valeur relative on descend. En, en, on pour les droits d'organisation. Mmh, am na fu ñuy toll sax. ñu may les droits d'organisation. waaw une réflexion ci la ñu nekk. Hmm. waaw par exemple xam nga dañuy ragal. Hmm. parce que ñun suñu base c' est quoi droit d'organisation c' est trois cent soixante quinze mille francs le minimum le maximum deux millions cinq cent. mais quatre vingt dix neuf virgule quatre pour cent yëpp trois cent soixante quinze mille la ñuy fay droit coono ngeen dégg. droit trois cent soixante quinze mille de dans la waaw. compris. deux deux deux au maximum daal ñooy fay deux millions wala deux kon gars yi ñun lu ñuy woote newuñu fa parce que loolu quand même bon c' est pas patriotique c' est antipatriotique économiquement même c' est. Euh, mais dama bëggoon laaj benn kii justement parce que promoteurs yi en général ñooy organiser. Mm. Euh,